baa ngi làmbaay randu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay di jërëjëf mbokk téléspectateur bi la Bantamba TV ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal yéen ñëpp nuyu ñëpp axlu làmb di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo taamu la Bantamba TV ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax waaw ah, balaa ñoo commencé nag damay jaalee ginnaaw raay dafa am tiis bu mag muy sunu jarbaat sunu rakk sunu xarit Sardot mu génn àdduna démb ñu koy ñaanal yàlla na ko sunu borom xaaree àjjana fi dos xale bu yaru bu baax sax ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar tey lii boo leen ko gisee xam ni xew-xew bu mag dafa am ñuy ban ñuy kan Bantamba production waaw Bantamba production ñu indi tey lamb yoo xamante ni lamb ju doy waar grand combat bi dox ci diggante Siteu Faramareen ak Siteu bu xees waaye am na ay combat yu ndaw yu toftal si ginnaaw ñu combat yu doy waar waaye grand combat baa ngi nii ñu ngi toog ak ñoom siita Siteu Faramareen ak Siteu bu xees ñu ngi toog ak tamit promoteur bi mi talaa promoteur bi am na ñeneen ñu nekk si ginnaawam mi mi kan Petit Mbay ak ñeneen ñeneen moom dina leen wax ñi noonu làmb ji nag di am le premier septembre incha allah fële ci ñaari kan kon ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Talla mu nuyoo. ñu ngi lay siyaar. jërë ngoone maa lay siyaar di jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu téléspectateurs yu Bantamba TV yëpp di siyaar ñëpp waa di nuyu waa label bi Bantamba production di nuyu ci njiit bu Petit Mbay di nuyu Sanu di nuyu le PAM du désert di nuyu Ramos di nuyu ñoom Diouf ñoom ñëpp waaw maa lay siyaar ba di nuyu ñaari mbëri di nuyu Siteu bu xees di nuyu Siteu Faramareen di la delloo kàddu gi rek. jërëjëf waaye ñu gis ni Bantamba production ñi ko bokk dafa dafa bari ñu ko téye dafa dafa suudewu tey làmb ji ba ngeen koy taxawal métti na wala méttiwul. non làmb ji métti na méttiwul ndax boo xoolee Siteu Siteu Faramaren moom bu jugee réew koy topp bu jugee Grand Dakar da koy topp ñaatali bis téeri di phénomène di phénomène ci làmb ji ndax boo ko neexoon tey ji xam nga am ñoom mu taxaw waaye dafa dawal comparaison xam nga ak bu xees mi nga xamante ne bu jugee. ñaateel da koy topp lépp ñëpp koy topp Grand Dakar waaw di di di nuyu daal waa Grand Dakar di nuyu waa ñaari tali ñu xam ne ñu jàppale ñu ndax mbapat bi boo dee xool lépp Grand Dakar la la delluwaat. ndax boo dee xool drapeau yi ko tuddee boo dee xool ah, ñi ñi bokk ci label bi yëpp Grand Dakar lañ dëkk. kon ñu ngi autorité Grand Dakar yi. ñëw jàpp ñu ñëpp ñëw jàppale ñu waaw. <laughs> ziar jëri góone nga jox sa waajtaay di nuyu bi Talla Boy di sama adversaire Siteu bu xees di wax bi billahi amee seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaraw rakk Seex Rafaal kàcce ngaalaamaa Ceerno borom daaru waaw jërëjëf Siteu bu xees ñi lay nuyu bisimilah osimila ina wali yàlla bisimilah osimila ina wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla borom taaru sant samay ñaari waajur ah waaw ah. jërëjëf mais seen combat Grand Dakar ñaari tari ñëpp ko doon wax te ñaar dafa am foo leen jaar wala ñu waaw Siteu bi maanaam dama koy yàgg gis muy bëre quoi yaa ngi dégg man nag mu la man maa bëgg bëre ak foo ko teg bëgg bëre ak dama xam ne man maa ko mun maa ko daa ko bëre maa ko gën pare aller retour. Hmm. te incha dama koy daal. Siteu tontu ci loolu ni ma soxlaa nii ba fu ma taxaw mu dëkku kii maa ko man maa ko. ma këpp kattan maa gën a pare kii bu ma yeboo de muus muy takku gaynde sax. Eh. ci man jamono eh. ji parce que man dama saf lam te nee naa. ah tof ma soora ma bàkkalee ma bàkku toog sama cubukaay. dama ne kii ci bi. la yow ku lay wele wele. yow su lay seetaan mere mere amu fi wàllu waxal eh, de si ni may waxee man doo daj de boo. damay làmb si. man doo daj de. li ma boo si teggee sa loxo dama koy tag lamb ji xam nga foo ko teg ci xar eh, fa xuufa gis nga sa biteel yi ma ko joxee mag sa kooku ma ne c'est sama lamb ak yow du ci seeti benn dara du ci yàq benn loolu yow la sama yoon nekku si mais man bu ma la mënee rey borom Touba woote de màggal gi man su ma la mënee rey dama lay rey maa la gën a gëm Siteu Touba bilaay fu ma la jàpp dama lay eh, gaañ dafal tekk rek tekk woon la yoon Siteu man nga def tekk tekk woon la yoon avance bi nga jël de dafal tekk tekk woon la yoon xaw doo mbaxal. bilaay maa la man si ta liggéeyoo de. si ta bu baax xool. naa liggéeyoo de. sa timbar laa xaw ma Moustapha Sire la ko may sama mbokku Bawol Bawol. faram faramaa leen boo xoolee Siteu mi xam ne liggéey na de. kii dafa dof. Eh, eh, nijaay. xoolal ma suuf ak ah, Siteu gi. maa gën a liggéey àll bi da koy may la pay. dafa tegale man ma bu baax yow Siteu këfu la. doo xeer nga naan ma noonu dama lay daan loo def daanu bu xeere bu wow bi soo bëree daanu soo defee daanu li may liggéey ba teg sa ko li may liggéey bu ma la ko waran nga delloo nga delloo avance bi barki Seydina Mohamed barki bi lu lu fay neex maa koy def te dama lay daan incha allah eh ah, man biiru boo yooyu dem ca lam jaay ku nekk ba jóor biiru boo yooyu Siteu. bu ma nee la jeex mu jeex. bi borom ndel bi la dof bi. Siteu. la yow lil waa nga war a tudd instant yi Tupac. yow instant nii kaara nga may niroo. dama lay daan mbarlaan sa timbarlaan yi ci suuf. ak sa catal bi. dinaa la faj fajum doof du doof nga. Eh. dinaa la faj fajum doof. dinaa la faj fajum doof. yow loo def daanu. may may may leen përmu. c'est que drapeau arbouraax la dama ko soxla de te bëgg naa mu tëgg ma. maa lay daan incha allah le premier septembre. le premier septembre incha allah ma la ñuy yëkkati sama loo xam la laay xaar arbitre ne prip prip. jërëjëf. nga xaar ba jamono. jërëjëf kan yow. waaw may ma la jàppee nga xam ne parawoo. si dëbu xees may leen nu. talaa waaw non boo boo gisee combat bi nga xam ne combat bi jaana boppam. boo gisee nga xam ne combat bi ñun xama ñun suñu xaalis tey dañ ko dugal foo xamante ni ñoo xamante ni xama du nekk combat les combats boo xoolee Grand Dakar bisteri ñëpp moom la ñuy waxtaane Siteu bu xees ak Siteu Faramareen te ñun xama rek ñun lamb cinquante cinquante nañu tëgg lamb boo xam ne tey buñ ko wanee amateurs yi ñëpp ay ñëw te lañ bëgg la premier septembre ñëpp ñëw génn jàpp ñu boo dee xool combat bu mag bi drapeau bi drapeau alburax la drapeau alburax waaw drapeau tamit tarba mbaay am na ci ak drapeau fësal yëpp am na ci waaw boo dee xool xam nga ñun duñ def loo xamante ni tey jii gars yi duñ ko tëgg ñu ne accam combat bi Grand Dakar événement la fi doon nii quoi événement national la waaw di ñaan autorité Grand Dakar yi ñëpp ñu ñëw jàppale ñu xam na ñun seen i doom lan waaw di nuyu tamit DC Pamour mbay mhm. waaw moom jàpp na ci affaire yi baax na boo xoolee plateau bi tey ni mu mel nii xam nga moom jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu Petit mbay nga xamante ni moom moom moom moom moo ñu jiite sax dañoo teg fii rek waaye moom moom moo ñu gën a lee ñun dañoo dañoo am dañuy wax defal lii ñu def lii di jëfeel ni ñu jëfe di la sant yow tamit Jéeri sant Sita xam ne jàpp na ci bu baax a baax a baax di nuyu tamit Sita Faramaren jàpp di nuyu nag sama mbokk yëpp waaw mbokk mboor mboor yëpp laa bëgg ñëw ñu jàppale ma ci bis bi xam nga dooleel ma sama booy nekk États-Unis xam nga ñoom baay Jang ñoom ñoom ñoom Ada Fass ñoom Modibo ñoom ñoom Moussa Sarr. ñoom ñoom Moussa Ginaar ama ñu ñëw jàppale ma quoi. jàpp ci affaire bu baax a baax a baax. si la nan la bàyyi nga woo ñu lay jàppale yow. waaw Ada Fass moom moo tudd muy gàtt sama jarbaat la. dëgg la combat bi Ada sa nijaay mu ngi la ciy woo si dafa ramaarem. di woo Moussa saar ay ñoom Sa Thiès. sama papa Sakho bu ndaw di ko woo ci combat bi sama papa Ibrahima Diop di ko woo. sama mag Assane Diop sama doom baay la ñoo bokk papa di ko woo ci combat waaw ñu sunu deret ngeen di leen woo ci combat bi ngeen jàpp ci bu ngeen ma jàppalee mbër laa de di woo buur Sine saalum maye koor di ko woo ci combat bi Serigne Ñilaan moom sama waay la maay mbërëm bari na mbër moomuyu jàppale te ndeysaan maay mbërëm di ko ci woo bu baax borom ko ci guy gi di woo mafia bépp di woo sama gaay ñoom Ndaama ñoom seex Diallo Baye di leen woo bu baax sama gaay di sant prime bi ma fi àndal nag waaw moom ci lu ma ko woo rek mu wayu ma waaw Serigne Bamba Mbacke jërëjëf jërëjëf jàmbaar la góor la di sant gaa yëpp di leen gërëm si dafa xees waaw man maa ngi mhm. woo sama mag aram jàkkaarloo mag aram aram Dieng mhm. sama magu xol maa lay woo si bis bi yee maa woo samay bàjjen Kia Ndiaye nga jàppale ma si làmb ji nii dama ko soxla waaw maa ngi woo samay nit baara ndukumaan maa ngi koy woo Ndukumaan immobilier maa ngi koy woo mu jàppal ma si làmb ji maa woo samay mafia waa koñ nanti ama waa koñ nanti un Gora Saliou maa ngi lay woo si waaw. sama maaraale sama maaraale Babel ma rek. maa ngi woo Itali. Gora Saliou ku Seri maa ngi koy woo Abdou Itali Seri Sira maa ngi koy woo bu baax baax mu jàppal ma si waaw jërëjëf woo samay bàjjan sama maam mère Maguette Mbaye teel ma tànk bi rek tànk bi tànk bi nga may teel mère Maguette Mbaye maa may woo sama maam mu teel ma tànk bi waaw jërëjëf ah, kon mbokk yi rendez-vous le premier incha allah ñaar tali lamb ju neex lamb ju doy waar na ko ñëpp waajal jërë jëf kontaan maa jooja dégg ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baax ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu